sant suñu borom bu baax sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant tamit jëmm ji nga xamante mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké bi nga xamante moom la ñu ñëw tey euh, njabootam saafonte ak njabootam euh, ànd ak euh, sunu ñooñ foo xamante ni it fu ñu miin la xëy na tey xam nañu ci wàllu politique waaye fii pas-pas dëgg moo ñu fi boole boobu ba tey donc tey loolu moo waral ñu ñëw fii ngir ànd bés bi ak njabootu sëñ Modou Moustapha seeti sëñ Modou Moustapha nag jël si ay leçon la ay dars yu ama am solo bokk na ci xam sa bopp bokk na ci it sàmm ndono bokk na ci it euh, dolleeku mahabba ci sëriñ bi bëgg sëriñ bi ndax fu mu liggéey bi euh, fu mu egg rek dëgg ak wóolu moo ko fa moo ko fa yóbbu te bëggoon na sëriñ bi ba mat sëkk transmettre ñu loolu wóolu woon na sëriñ ñu loolu donn yoon wi tamit dans un contexte de crise waaye crise boobu terewul mu bàyyi fi ay résultats yoo xamante ni yu màgg la yu ama am solo la loolu moo tax tey en tant que une jeune génération bu ñëw am loo xamante ni tamit yàlla suñu borom dogal tey ñu koy dox ci réew mi di tàbbi si barab yu mel nii ci contexte yu mel nii ngir jàng si ngir ngir fàttaliku

ñi ñi jege woon sax dégg nañ bi ñu agsee mu ne gëjoo ci kër gi te lool moom moo am gëjuñu fii ñëwoon ziar si ko nemmeeku si ko donc tey jii tamit ñu ñëw dox si tànk yooyu